si commune yeen moom bokk na si dem na wax na te wax na sa wax waa Tëngéej jarul ngeen di ñëw yeen ñun waaye yeen mën nañoo daje waxtaan te dinañ ànd moom wax na loolu si benn réunion waaye nag may wax ne ba fi may wax ak ñu ngi koy xaar gisaguñ ko ñun dañuy tàmbali nañu suñu campagne tey bu suba bu soobee yàlla bu 4 heures jotee dinañ dem tubaab jalaaw am na ay xale ñu fa invité. ben rawante gaal te yalla mo dogal tubab jalaaw lañ daan tambalé suñu campagne occasion lay nekk it ju dem tubab jalaaw sakku ñaan buñu paré dem ci rawante gaal bi bu 6 h jotee waxtu bi xalé yi nga xamné ño ñoo daan ànd ak ñom di campagne fi té ñu daan sol tenue di def kung fu ñoom it dañuy organiser ben cérémonie ci quai de pêche ñangal Njangal ñoom ñun lañ ko parénel bu ñu fi jógee tubaab jalaaw ñun ñepp ñu ànd dem quai de pêche bi heure bu ñu bi mu nekk suñu première journée campagne suba loolu la ñu def si yàlla ànd. dafa nekk tey assemblée générale pour commencer suñu campagne électorale jëm ci élection législative muy député yi ñu waroon fal le 31 juillet 2022 député yooyu mooy député yi nga xamante ni ñoo war a jàppale le président de la république Macky Sall pour que le programme bi mu taxawal mu Nous, ko doxal ñun ñoy Benno Bokk yakar bu commune de Benno Bokk yakar bu commune euh, parti socialiste avec bokk ak APR ak fekke ma ci Djell et le nouveau maire de Yen a intégré Benno Bokk ce qui fait que nous sommes dans une dynamique unitaire qui permettra Soube ñu mën am résultat yoo xamante ne ni mooy yi nga xamante ne mooy permettre président Macky Sall programme bi mu taxawal muy plan Sénégal émergent mu mën ko doxal te mooy njëriñu Sénégal di njëriñu Sénégalais ndax euh, nekk na ay projet yoo xamante ne ñooy defar dëkk bi ñooy structurer dëkk bi ñooy euh, améliorer euh, la gouvernance donc loolu moo tax waaye yéen taxaw nañu tem benn gis nga mobilisation bi ñu def tey ci assemblée générale bi xaaruñu dara lu top départ pour que ñu wane seen bopp dinañ dem ci nit ñi dinañ dem ci góor ñi dinañ dem ci jigéen ñi ah, campagne de proximité est privilégiée, gën plutôt que de faire du folklore hein mais nous nañu yéen xam nañu mobilisation ak seen engagement wóor jàpp nañ ne le 31 juillet euh, ci euh, président Macky Sall danañ ko jox euh, résultat boo xamante ne bi dina dépasser 70 pour cent am nañ ci yaakaar bu baax ndax taxaway wayen xamnañ ko ak ñiko ko ak euh, bëgg-bëgg biñ ci am donc euh, je pense que euh, Benno Bokk Yaakaar dana bokk ci ñi nga xamantene ne ñoo indil Macky Sall résultat yi gën baax ci Sénégal.